ngi yéen a ngi teewlu info 221. jërë ngeen jëf mbokk internet yu info 221 ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd bu baax a baax ñu ñëw digtal leen li nga xam ni kon moom moo di xibaar yi fi gën a fës ginnaaw bi Antoine Félix Diome jëlee décision tas. li nga xam ne moom moo di parti Pastef les patriotes ci benn communiqué boo xam ni def na ko ci li nga xam ne moom moo di page Facebook euh, ministère de l'intérieur dañu ne meeku sànq rek ay image yoo xam ni dañu ne rek euh, kooku le moo di mbër mi nga xam ni moom moo di wuyoo ci am ma seen moom lañu rek daal di nemmeeku ci ay vidéo yoo xam ni euh, dañ ko gis rek mu ànd ak ay nitam armé wu jusqu'aux dents di génn ci bedd mi lan moo waral ab génnam day rek contre li nga xam ne moom moo di ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy manifester ci koo xam ab ah, lu mu ci mënti doon rek euh, ñu ngi leen koy toppal en tout cas euh, li ñu leen mën a wax mooy. image yooyu ñu leen officiel euh, nee nañu Eumeu Sène la moo génn jamono bi ñu toll euh, ñi wax ak yéen yor li nga xam ne kon moom moo di arme euh, rek ci jamono bi nga xam ne xale yi ñu ngi manifester di li nga xam ne itam kon moom moo di seen naqar internet info 221 restez connecté saa bu nekk rek ñu leen indil li nga xam ne moom mooy xibaar yu fi wàccee. Euh, ginnaaw comme ni leen ko waxee tass gi nga xam ni Antoine Diome jël na décision euh, def ko tas li nga xam ne moom moo di parti Pastef ngir rek jàpp na ni rek euh, événement yi nga xam ne jotoon na fi am lépp parti bii di Pastef moom moo ko doon amal mu jël décision rek daal rek tas li nga xam ne kon moom moo di Pastef leneen li ci toppaat muy génn ko ëmma seen googu kon ñu leen di jox dig daje ci kanam tuuti xibaar yi fi gën a fasaat rek ñu indi leen ko baaxee leen ko mbokk internet yu info 221 jërë ngeen jëf